alaaji ah, waaw dafa am benn info. Uh-huh. samedi am na ñeenti doomu Sénégal yu gaa yu faatu woon ci géej gi doon dem Espagne. waaw xam nga ñu di wax naan dañoo foog ni immigration clandestine la. allahu akbar. mais nag moom la kenn ki nga xam ni bi ñuy dem. waaw ñoo àndoon bokk néeg bu ñu doon fanaan marok dëkk benn néeg. waaw mais bi booy dem moom ragoon mu xawoon ragal géej gi. waaw ñu newul dem toog. waaw ña dem nag ñoo dee moom ma fa des ma nekk ci Maroc nag amet woo naa ko mu ngi nii ci ligne bi waxal ak moom. ca Maroc. ah waaw. ana nu mu tudd. waaw eh, sëñ bi na nga def téye tur bi waaw ñu téye tur bi waaw jarul ngay tudd sa tur na nga def. maa ngi sant bu wër kay alhamdulilah. alhamdulilah waaw yaa ngi ci émission Taski Zik FM mani. Eh, eh, léegi daal mbir mi daal nan la demee affaire bi da ngeen doon dem Barça wala balsax comme ni ñu koy wooyee wala affaire bi daal nan la demee daal ba ñëw ñu loru ci. waaw affaire moom. comme ni ñu koy defee fii rek sénégalais ni ñu koy defee ak yeneen ma euh, euh, ñàkk yi ma Cameroun yi. waaw. dañoo or combat ñëw teg ko dem léegi organiser nañ combat depuis keroog mardi bu repassé. combat wala. léegi combat combat moteur combat combat raame raame quoi comme soja gi mooy gaal yu ndaw yi. gaal yu ndaw yi. Ah. noonu koy woowee. ngeen koy woowee. ay gaal yu ndaw ay gaal yu yàgg lañ koy woo waa marocain so wow lañ koy woo waaw waaw waaw léegi ñun dañuy koy dañ koy jënd fi ñooñu koy jaay policiers yi ñoom ñooñu koy jaay parce que ñoom policiers yi ñun buñ ko jëndee dañ dugg si ndox mi policiers yi ñoom ñooñuy jàpp bu ñu jàpp ñoom ñooñu koy jaayal ba ñu ko jëndee ñoom ñu pompé dem teg mais géej gi baaxul woon si guddi boobu waaw géej gi baaxul woon yooyu ñoom ñu tranquille ñoom ñu tranquille foofu ñu tranquille si àll bi fanaan fa boobu set ba guddiwaat si ay sept heures yooyu ñoom si lañ tegaat. Hmm. loolu ba mu tegee ay côté mini yooyu fekk ñu ngi si biir ndox mi géej gi ndox mi bu baax na affaire bi leen après ñu woo ñu ñu ne <coughs> ñu ne ñu woo leen woo leen ñu marine bi. ba ñu marine bi marine bi marocain yooyu ñoom ñoom ñoo dugg si ndox mi quoi parce que géej gi dafa yëngu. Hmm. léegi ba ñu woowee espagnol yi espagnol yi ñoom itam ñoom ñoo war a war a foofu mais gis ñu leen quoi. bés bu ñoom ñooy ñu gis ñu ba léegi. léegi léegi ñoom ñaata léegi ñoom ñaata lañ ñeent lañ. déedéet ñoom huit lañ huit personnes. la ilaha illallah. kon ñeenti yee feeñ. kon ñeenti ñoo feeñ. kon ñeenti ñoo feeñ. waa non ñun ba léegi ñuy wax a yow nii gisuñu ku feeñ ñun gisuñu képp ku feeñ. ñu kenn information parce que man maa topp information boobu ba léegi man maay topp information yi. bu ma déggee euh, espagnol bi sax fi maa ngi ñoom mais ñoom waxagul ñoom ñoom for nañu for nañu ñëw en même temps marocain yi. waaw maa ngi dégg marocain néew yu for mais démb demoon nañ si bi xool marocain yi ñoom mu ñu benn sénégalais bu ñu for fii. mais mais ñooñu nga xam. am na ñu woote foofu nag. Hmm? waaw waaw waaw na ñu woote foofu naan euh, comment dirais am na ñu woote foofu naan ay sénégalais yu ñu for fële. Espagne dugg na fi génn fi mais ñun jotuñu information yooyu suñu gars yi ñoo woote fii rek mooy ñun bu xalaf ñoom ñoo woote commencé expliqué foofu te ñi nga xam ne ñooy toog affaire amaguñu information boobu ñoom daal xam nañ ne ba léegi gisuguñu leen. Hmm. te am na ñu ñu jotoon a déggonteel jamono yàlla ñu ne gis nañ benn bateau di leen for. Ah. mais itam loolu confirmé wul parce que bateau boobu ba léegi bu leen bu dee for nañ leen ñun ñoom woowaguñu. waa léegi autorité sénégalaise yi kilifa kilifay Sénégal yi nekk foofu lan la ñoom. kilifay Sénégal waxuñu defuñu fi benn effort ñoom jëmuñu ko lijjanti sax jéemuñu koo lijjanti. Euh, Ahmed ñun ñi ñun ñun boo gisee ñuy jóge euh, Sénégal bii di ñëw fii pour pour tenter suñu sens dem parce Sénégal ci boppam. Hmm. da nga fay nekk yor sa métier mais doo liggéey. doom liggéey man mii di wax ak yow technicien la am soudeur la maa ngi sama publicité mais mënuloo fexe fexe fexe ba liggéey foofu fu ne da nga koy déposé demande def CV koy def mais doo liggéey il fallait la a ñëw fi jaar fii dem moo xam ne bi en da ngay toll fii di woote foofu sa gars yi nekk di la xamal carrément booy loo def ko dem demal parce que Sénégal fi dara nekku fi dafa metti dafa dugg fee ba génn fi xam yooyu itam boo koy dégg da ngay gën découragé quoi doo bëgg a dellusiwaat foofu doo am courage fii dafa metti naa dañ lay saaga lu ne ñu la koy wax de la traité esclave comprendre mais yëpp da nga koy mun. ok xam nga jàpp ne boo duggee yëpp jeex quoi. Mhm. mais teewul yow découragé wu da nga am yéene rek nga dem daal. non man man kay damay man suñu combat pare na ñu instant bi nii ki ne moom a àndal ki nga xam a àndal ñëw na suñu combat pare na instant bu neexee yàlla bu temps bi xawee normal dañuy tegu si ndox mi. ah mais yow yaa ngi gis say euh, sëñ bi sëñ bi yow yaa ngi gis say naataango sénégalais réer ci condition yu mel noonu ñii ne dee nañoo yooyu ba pare yow nga bëgg a jaaraat encore foofu nag mbaa loolu du nekk xaru mais mais du du ñoom rek ñi ñi dee suñu ndox mi kay du ñoom rek parce que keroog am na quarante une yoo xam ne dee nañ foofu quoi ñooñu ay def nañu accident ci kon yow ragaloo dee fi mu nekk nii quarante la yow ragaloo dee quarante quarante personnes gaalu moteur la combat moteur la waaw man yow ragaloo dee yow dee man dee kenn ko parce que yaa ngi bàyyi say parents foofu. waa waaw waaw ñoom xam xamul si lu ñu xam si loo nekk. waaw comprendre nga da nga leen di woo rek dalal seen xel mais. Sénégal nooy wëñee ko Sénégal Ahmed yow instant bi da nga fi yéen man dem naa fi def naa fi un an presque. am na ñoo xam ne dafañ see deux ans trois ans. boobu léegi yow nag may retourné Sénégal yi xam nga yoroo dara yóbbuwoo dara boobu ba léegi yaa ngi bàyyi say parents foofu. Mm-hmm. amoo loo leen jox nga bëgg a wëññeeku waat ci ay loxo nen loolu dee la koy gënal ngay dugg si ndox mi yàlla bu defee nga dugg baax na boo duggul xama d'accord kon kon léegi après Mansour dina ok d'accord Mansour kon dina yeggaleeg yow après communication bi dégg nga ah, merci beaucoup kilifa yi ñu ngi lay déglu dégg nga ok ah. yàlla na leen yàlla may jàmm waaw ah, baax na waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf alaaji tës bi waaw bu njëkk bi viol la viol la viol la mam mbay bu tëngeej moo laaj ndaw si ndaw si nag doomam bu jigéen la ñu violé te doom ci jigéen ji fukki ak benn est-ce que fukki at ak ñaar yi mat na laa ilaha illallah te ka ko violé nag góor gi ni léenga-léenga la laaj yor jabaram teg ca ak njaboota fayda mais li doy waar ci ci viol bi mooy moom ndaw si yaayu xale bi dañ na ko baaleel comme que baalewul nag ba àtte nañ ko góor ki ba tëj ko 10 koñ ba ñëpp ko tong ndax de nee nañ ko fii luñ fi mënul baale amul. dañ ko tong dañ ko tong. toujours dañ la tëj. boobooy mititam gu njëkk ñaareelu mititam ga mooy xale bu jigéen bi ci boppam. alaaji kiñ violé. waaw xaritam yi dañ koy tooñ naan ko léegi da ngay saw lalak. ndeysaan ndax bañ ko ko defee ak léegi ni leen bañ ko yàqateeg léegi. normal mhm. la ko feebar boobu dugg normalul ndax gone la. oh ñu saw lal ci lu mu tayul. léegi nag noonu ay xaritam di ko tooñ mu faf daw léegi nag daw na yaay ja xamul fan la xale ba daw su meer ana yaayu xale bi. ma ko laajee lan moo la dal dana ma yaay sama biir day métti ma nag sa biir bu métti dangay tëdd doo ma oo ma ñëw jëndal la garab mu commencé jooy ba ay deux heures du matin muy crise léegi muy crise ma yee papaam nag. lan nañ jóg enquête ka ba xam lan moo ko dal léegi man ma jóg ma jógee ma yee ka nekk sa lan la. dama gis ngay kiris ak di yuux si guddi gi mu ne ma yaay dara ma nekk jógal at koy jël bool bi di ko tiital nekk boo xulee nag dama lay rey mu ne mu commencé jooy ne ma yaay diw moo ma violé ma ne ko violé mu ne ma waaw ma ne ko wóor na mu ne ma waaw. araam da ko gaañ. da gaañ léegi mu jóg mu jógee nag daanu ma xool tubéy ji tax a léegi may ma yuuxu ma nit te daanu xam papaam yëkkati ak bàjjanam ak magu papaam ñu yóbbu su mbargaan ñu koy yóbbu su mbargaan gynécologue bi xool xoolu xoolu ko sax nee du ko te demuñu police mu bindal ñu benn benn kayit ñu dem police bu ñu demee police police bindaat kayit itam. ñu doog a dem isu mbargaan colloque bi xool ka ne kii àgg nañ si kawam gaañ na ko. léegi mm-hmm. ko defee lool ñu colloque bi bindal ñu benn kayit def ko si enveloppe ñu yóbbu ko police muy jour àjjuma les policiers yi xool ne kii. ndax buñ ko demee dinañ ko fekk ko foofu wala déet papaam ne dinañ ko fekk foofu buñ demee ne si la police yi àndaa papaam a magu papaam jëli ko ñëw indi ka si lañ ko téyee liñ ko téyee téyee nañ ko fi àjjuma samedi ba dimanche ba lundi ba maat ba mercredi ndekete liñ ko téyee cëw leen dañ ne man la ñuy xaar ma baale ñu mën kaa génne dëkk bi kenn du ma tudd fi mu ne nii ñëpp mere ndax lan ndax viol bi dama ko waroon a baale ma ko woon a sa doom ñu violé nga bëgg ñu bëgg nga nëpp nëppal ma baale ma nëpp nëppal ndax nëpp nëppal moo tax lii am na dafa am ku ko jëkk a def si biir kër gi waa ji waa ji waa ji violé sa doom waaw dafa am xale bu simbitu ba yam ko am huit ans moom xanaa da euh, xel mi neexul yor na jabar yori doomam xel mi neexul moo la gën a neexam xel yor na jabar yori doomam hmm. bi mu ko defee loolu avant boobu sax dama ko fekka sama néeg fekk sama jarbaat bii moo moo ma oo téléphone ma jëndal ma temps soble ma jënd soble bi di ko yóbbu ma génn ba si bunta kër bi comme nii rek ma génn ma génnee ma ko mu taxaw si cantine bi xam nga boroomu rab sama yaram na say nga man damaa fiira may fiira ba fiira baayam ma oññoku waa di ma oññokoo léegi ma oññoku bi ma oññoku maa nga fekk sama néeg mu taxaw sama doom a ngi sangu yor sama ndax sama doom bu góor bi bu ndaw bi mu ne puso la koy àbb ma toll sa buntu kër ba ne diw diw diw diw diw diw ne ma yaay ah nekk diw koo nekkal si néeg mu ne ma yaay diw moo ma taxaw bu ba almu pousse ma ak nee pousse ko ma mu ne ma maa fekk sama doom oddo ben sarbet sama doom ji ndaw jang tege keneen kanki mu jox leen cent francs pour ñu jënd six pour leg libéré gune mu libéré gune pour mën a def xale bi xalé xalé xale sama doom bi beneen bi dafa réew. ka saaga ne ka. dew ma génn sama neeg yaay xale bu jigéen mi rek tëb na tijji na beneen bunte ba daw si bàjjanam ma ñëw sama yaram bi ne bu ma lay tël rek puso bi muy téye pour jël puso bi lii bi weñ gi pour nas ka wadda moom xale bu góor bi wadda léegi mu waddee ma dem si benn suñu benn njëkke boo ne moo kii ñoo bokk benn bàyyi ma génn ne ka diw ko mu bàyyi sama néeg bàyyi sama doom bëtam naka simpi sama doom boobu jotoo góon yoon déedéet boobu mi ngi doon mi ngi doon yoon waaw gémmañam naka bàyyi sama doom na bàyyi sama doom benn la si ndeyam mooy sama yaakaar naka bàyyi ak man ma dem wax ndekete ñooñu waxuñu baayam dara waxuñu yaayam dara ma bàyyi semaine lañ si teg mu jugee kayaa diw mu jógee mu jógee fa mu demoon moom ak papaam bi mu ñëwee mu sangu ay cinq heures papaam ne ka nan dem mu ne ko jiituma ndekete jiituma jooj da ko doon yootal xale ba ngi tëdd si néegi moom ak sama doom bu ndaw bi ñëw na ba wàccee sama doom bu ndaw bi si suuf rek bitt xale bi teg ko paaka si noonu noonu mu yegg ci kawam mu yegg si kawam noonu léegi bi mu ko violé ngeen porté plainte daal di koy tëj léegi nag ñu tëj ko àtte ñu moom mi ngi si kaso bi mi ngi si kaso bi fukki at fukki lañ ko tëj waaw léegi bi ñu ko tëjee fukki at léegi ñoom dañoo def appel jour bi ñu defee appel ba kii jëli kayit gi si la xale bi jóge tuwaawan dem. moom moom lu ko yóbbu. xaw ma lu ko yóbbu. xale bu jigéen. waaw moom depuis bi ñu ko violé noonu la. ko violé ba léegi noonu lay def day saw te masul saw. Hmm. day saw. moo tax. man la toog dañ ko doon ñaawal ak ay xale di ko ñaanaa day saw la léegi jour boobu mu ba pare dem. léegi moom c'est la c'est waaw. jékki-jékki rek dem nga xamul fu dem xamul fen man la xam yaayam baayam xamul fen fen amul xarit amul lan fukki at ak benn. ragal leen daa am ñu ko def. man ragal naa lool ndax man fu ma dem loolu lañ may wax ne ma def dañ ko naaw daal pour mu bañ a fekkee appel bi cagala day dugg fi génn fi yàgg na kaa def. ñoom menacé ñu leen woon si daan. déet ok ah, sa commencement ba ah. ñoom la lañ wax. dañ ne bi ñu àttee ba pare. bañ tëj seen doom fukki at dañ ne man tëj naa seen doom waaye sama doom du nekk si jàmm. ku wax loolu. papaam ji jur xale bu góor. papu xale bu góor. waaw te ñoo dëkk seen kër comme nii ñaari tabax yi. moom mu ne comme te tëj ngeen doom seen doom du nekk si jàmm. si jàmm. waaw léegi kon ragalu leen ne papa kooku am na lu mu ko def. moo ko def. bu nekk di di dox rek. day dem te man fu ma seet ñu ne ma mu si ñaari jigéen mu téye. fukki at ak fukki fan ak benn tey. fukki fan ak juróom tey. léegi xam leen xale fu muy dem. fu mu ne. xamu fu muy dem. kon ba fii nii gisu leen. gisuma ka fu ne dugga naa fu ma dem na ñu ne ma fi ma dem démb ñu ne dina ñëw tey. Hmm. loolu lañ wax. man maa ngi caaray. Hmm. maa ngi dama jóge fële dem suñu kër. waaw. Hmm. laa nekk di xaar sama doom. balaa appel ba. la. dix nii nag koñ bi. sama fa may sëy kenn du ma tudd kenn du ma taas ñëpp moo mere ne ma a baale. da nga waroon baale te sa waaw ndax gisuma luñ dul baale luñ man la baale amoon. ma ne sama ma ne sama jëkkër boo baalee samedi dimanche fase ma ndax man du ma yor benn bu jigéen ñu yàqal ma àddina moroomam baayam yor bi jaawam yor jabaram ak ki doomam teg bëtam sama doom. yaxal ma ka ba tëddeel ma ko. xaw ma dina jar xaw ma dina làbbewu li bàyyi naa ko si loxo yàlla suñu borom. trisewu ma sosu ma damay wax te yàlla tax li ñu def sama doom sama doom du fen xamul xamul kenn mel na moom moo ko def lii xale bi eh, eh, yaakaaru leen ne moom affaire daf ko jëlee kaw. ba bopp bi xaw a déranger. daf man xam naa dafa nekkul man man xam naa le jour may jóge fa mu nekkoon noonu bi may ñëw da doon jooy. Hmm. mu ngi jooy bëggul ma sori ko benn yoon waaye. boo gisee ma def loolu moroom bi niñ koy ñaawal dañ la nangam dañ la lii. moo tax ma renvoyé ko mu dem foofu. waaw foofu la jógee nag dem man. yóbbu leen ko psychologue wala dara. psychologue yóbbu naa ko fa waaye ma ko fa yóbbuwoon ci bindalu ordonnance cinquante mille ma jënd ko. waaye beneen cinquante mille bi aw ma Mhm. kat ordonnance baa ngi si man ma denc aw ma njëgam kii amul doole géej la yaakaar man njaay géej jën laa yaakaar ñetti fan ñaari fan biir bi mitti daaneel ko. kon xam leen nag kon yaakaar leen xale bi daf traumatisé wu. waaw moom xam naa boppam nekkatul moom. xam naa loolu man ragalu moo tax mu dem. loolu mooy tax mu dem loolu rek mooy tax mu dem. kon daal mën nañ jàpp ne gisu leen gune yi. gisuma ko ba léegi. jékki-jékki na dem. dem na benn am na 12 ans fi mu ne nii ngi doog am 12 ans. alaaji axirul zaman lañ ne ko kenn musu koo gis. ah kenn musu koo gis. alaaji. deuxième tës bi. tës tës bii. chimère. tës am. xam naa gars yi nañ ne amee temps chaque mu ne tës bii mosu fee bu <laughs> baax tës bii laa ne am. tës bi mosu am. déedéet ba pare mosu fe lu metté ni kenn gis ndaw si ji dafa am fas fas cheval fas di daw fas tak saret mais fas bi la ay nit ñew fekk mu taxaw mm-hmm. ala ñu jël Nous fas wi ko ci digg bi <laughs> loolu nga mosu fi am tu as parfaitement raison. mais li nii El Hadj déglu El Hadj mais El lii nekkul ay ay ay mystique. dagg la ñu di laaj ay baaraam. làmmiñu fas wi lañ jël dagg genn wàll gi. <laughs> comme ko yor sa ndawal rek dagg dagg dagg fàlla rek yóbbu. ah, ah, ah. la xewe tey moom ma mbay aaye. <laughs> mais lu garaaw laa lay expliquer nii. ndaw si jëkkër ji lañ fekk fas wi taxaw te kan moo war a fekk gémmiñu fas wi ba war koo ŋaay ba dugal loxo bi ci biir di di dagg di dagg del risque mën a mel fas wi bu ko mattoon allah ji nga xam ne ay bëñu fas daa xëcc ci loxo bi non du ko matt kooku xam na fas loolu du ko matt ki ko def xam na fas de loolu yomb na alaaji loolu yomb na ah bon ah loolu man mii di ko nekk kaw kaw dëkk kaw sa ah. loolu yomb na ci man loolu du dara ci man. dégg nga si meer naan ma ndax fas laay nekk xamul sama loxo bii fas damoon na ko loxo bii. maar di taali dawal fas ba daa ànd ak moom daanu <laughs> damaa gubbi woon. gubum gubum charte laa defoon alaaji làmmiñu fas wa daal. <laughs> oui ma Sibère nee na ndax fas yooyu nettali histoire bi liñ ko def <laughs> fas wi kay xam nga ne même bu mënoon wax sax niñ dagg làmmiñam yi dana tax mu doto dootul wax day doto moom fas wi nag jabar ji ci boppam mu fi ñëw nettali fas wi li ko def waaw. merci alaaji amoon naa fas woo xam ni. yii alaaj nañ déglu fas wi rek. général Waly Faye la tudd. xaw ma nañ déglu fas wi xaw ma nañ déglu borom fas wi. alaaj <laughs> du gëm ne amoon naa fas. <laughs> général ki moom fas wi jabar ji. moo expliqué fasu jëkkër ji ni ñu ko def. dagg làmmiñ wa yóbbu. alaaj <laughs> bàyyi rëy alaaj ñii fas lañ bëgg de parce que ci la ñuy dund. même soxna si wax na ko. simeer ana ana borom fas wi. li waroon tey ma ñëw fii sama borom kër lan dagg fas làmmiñu fasam. lañ làmmiñ fas yu lan dagg. làmmiñ bi euh, euh, taw. làmmiñ bi ci boppam lan lan xaaj ci digg bi yóbbu genn wàll gi bàyyi fa genn wàll ga fas waa nga taxaw. Hmm. mënul dara mënta lekk. mën maatul boppam wala moom moom dañ ko dagg tàppit. mu maatul boppam dañ koo dagg tàppit guddig àjjuma lan ko def guddig àjjuma lan ko def sama borom kër xëy takk bi euh, def ci attention mu xëy takk ko yóbbu li liggéey ci ñëw takk ko dugub ji lekk ko. mu tëppa defaat ko repasse mu lekk te boo ko commencé a def mu lekk lépp lekk ko mu ni sam fas bi ne am na lu ko dal ci la ko rakk ji ne ko lekk sa fas bi daa mel ni li mu lekk la ko dal ci gémmiñ gi la ko la ne mun ko ko nan ŋaaye nan yëkkati gémmiñ gi ñu xool ko ñu gémmiñ gi daal seen daggit wa ca biir daggitu làmmiñ baa ngi làmmiñ ba ca biir yóbbu genn restant làmmiñ bi la des ci làmmiñ bi moo nekk sa biir moo nekk ci biir léegi am genn wàll genn wàll gi moom la ñu yóbbu xam ne ko yóbbu léegi dagg bi moom ceeta dagg wala mom danoo dagg lu bari lu bari lan dañ ko xaaj làmmiñ ci boppam lan xaaj ci digg bi yóbbul cat la bu fekkoon dafa dagg sax tuuti nga mën a xam mais dañoo xaaj làmmiñ wi fas waa nga ne taxaw mënul dara dara dara. moom dagg bi dagg paaka la wala leen set dagg bi moom set na wala dagg dagg bi daal. dagg moom xam naa paaka wala ka war a dagge wala wala jaas la ka war a dagg ndax dagg bi dagg bu bu rëy la làmmiñ wax la ca des sax bëriwul la mu yóbbu moo ëpp la la mbaay fas bi nag mënta lekk. problème bi mooy fas ak ni mu amee doole moom nu mu ko naxee balaa mañ bi génn xamul nu mu ko naxee ñun daal bi nu ñëwee ba gis ko laam mi ñun ñëpp waa kër gi noo waar sama doom ñëw ni ma yaay mu ne mun ma ñëwal curi ba sama ñoom papa nga ne taxal noo fekk ñu dagg laam ñu fasam ma dem teg sama borom kër dal béy mañ ma ne luy lii ñun ma lii lan ci am fas bi daal ndeke lii moo ko tee fas bi lekkul dugub ci sax dem na ba sebet dugub bi sax ni xëy na ci problème la sibet dugub bi ba mu ba ba ba mu gajaf mu mu jox ko mu mu mu bopp bi. xanaa gisul gémmiñ gi doon nàcc wala seetluwul. yëpp yëpp nu gémmiñ nàcc. bi mu daggee làmmiñu làmmiñu noonu ko daggee noonu ku la ci noonu comme naanaam yow mu jël sa yàpp rek dagg ka noonu rek. teg leelli rek teg na li moom bi muy mujjee gis fas bi làmmiñu nee na woon ñum. waaw moom bi muy mujjee gis fas bi ba ba kii alxames dara nekkul ci fas wi làmmiñu dañu woon mais bi nga xamante ne lekkul nag lekkul ñu yaakaar ne fas dafa tooyoo ñi jël ay nene bi tubaab di ko jox ginnaaw bi la lay yëkkati euh, bopp bi rek di wiccax di def ay manière léegi ñu ne ni comme lii mës am ci fas nan seet gémmiñ gi bi ndax ko def am na suñu benn dëkkandoo boo xam ne moom mi ngi dend ak euh, fas yi noonu nee na moom dégg na fas yi jooy ci guddi gi ñaari yoon wandri ci guddi waaye ne dafa defoon manière yi fas rek la waaye ne dégg na fas bi jooy moo kon moom da ngeen gis da ngeen yaakaar ne kon ci guddi gi daal lañ ko fekk foofu rek dagg lan kay kenn xamul lan la ñun daal ñoo ngi nii jaaxle lan am koñ ba yépp jaaxle nanu kenn mës a gis lii man ku ma woon lii ma weddi ko aw làmmeñ fas ngeen ko kat yóbbu yóbbu genn wàll ga bàyyi fa genn wàll ga ku ne xam na ne metti na man nag sama borom kër ngi ni toog ci toog moom la yaakaaroon moom la yaakaaroon moom la def yaakaaram mi ngi ni toog liggéeyul fan yi yëpp liggéey fan yëpp mi ngi toog benn fas boobu la ko yàlla joxoon mu ci suturlu këram yor ci ak njabootam bi ñu daggee làmmañ bi ñeen ngeen yeew fekk leen foofu benn ban façon dagg la ko dagg kenn xamul ban façon dagg la ko dagg kenn xamul ban façon ñun daal lii lan ci am làmmañoo daal lan xaaj yóbbu yéen njortu leen kenn ku ku yónni woon la làmmañ foofu kim njortu kenn ku ne yónni làmmañ loolu ko xam nga kenn ko njortaale sëñ bi kenn du ko ñun daal lii lan ci am làmme bi ñu yëkk bi ñu bi ñu xawee yëkkat nañ gémmiñ fas ba ca kaw lan si daggitu ci biir ñu xaaj làmme ñu leen xaaj yóbbu genn wàll ga yéen yaakaaru leen nekk mbirum jabar a jabara ngi ci biir ah ma de xaw ma parfois sëriñ moom laaj la ay ñun gis nañ fi sax ñoo xam ne laaj nañ leen karaw karawu xaj wala ñoo xam ne mën nañ leen laaj lu nekk waaye làmme ñu fas moom làmme ñu fas nga ni kat digg ba te man li ma jaaxal dafa jëlul sax tuuti lu bari la jël. Ah. dafa jël booy seet ni la mu yóbbu moom moo ëpp li mu lekk fas yi moo tax fas yi sonn. fas baa ngi taxaw. Mm. waaw fas baa ngi dëkk taxaw. fas bi fu nekk nii naa tuuti làmmañ moo si des. tuutee ci des. la ca des na nga ca biir ca biir gémmiñ ga ñun xam mënuñ ci dara gisu leen genn wàllu làmmiñ fenn gisu fu deret tax yóbbu nañ ko gis nu dara boobu doy na waar di gis nu dara yóbbu nañ ko ñu ne ñun ñëpp a jaaxle koñ bépp ñun waa lew na yaakaar leen ne xaw naa mystique tuuti ah man de xaw ma xaw ma man mënu wax fi nekk mënu ma ci wax daa ndax lii rek loolu laa ci am dépense boobu daal ngeen moom la sa borom kër. la ñu yaakaar nag moom la ñu suturlu ak njabootam moom rek la yor ma nga nee ba mu xëy mais ñetti fan yëpp ngi toog liggéeyul te ci la yor këram amul kenn ku ko jàppale ginnaaw yàlla te yàlla tax ñu ñàkk sa ñaan ndimbal. ndimbal bi beneen fas la waaye xam naa làmbañ bi xanaa duñ ko jël ñawaat. déedéet kenn ko ñëw dañuy ñaan ndimbal pour ñu lu ñu jëndee fas ñun. beneen fas dee kenn mënu koo faj sax sëñ bi dee boo gisee la gémmiñu fas kenn mënu koo faj sëñ bi fas yi ma nga taxaw mënta lekk mënta naan aw fas na bu lekkul naan ci dee la jëm fas fi borom fi nekk day xalaat moom fi ne nan ko a yóbbu sax aan moom rek lan xalaat bi amul benn solution ndax fas yi mënatuñ koo takk amatuloon ni njariñ ba mu ko defee noonu mën na koo rey sax bàyyi ko fa bu ñu diri ko yow soo suul fas xam nga lee ma ko def ne ñaaw na ñaaw na trop da ca kanamu yàlla ndax wërsëgu sama jëkkër moom kenn mënu ko koo xañ nag waaye kee mala la xamul dara loolay problème bi kenn mës a gis lii